asalaamaaleykum mbokk yi yéen ñu ñuy suivre ci seen site internet luttetv.com tey mardi 30 avril 2019 ñu ñëw yéen ci yéenekaay yi comme ni ngeen koy amee chaque jour ma koy séq ak Bokar Ndaamal Kajoor Njoolu Saalum Bokar maa lay bégee. Lamine maa ngi lay nuyu di la ziar del ñu njoolu la nag njoolu la mais du njoolu Saalum du du ma Ndaama. di nuyu mba internet Lutte TV yëpp. a Massoud di nuyu. waa Looro tuuti yaay Sarr ak waa Looro yëpp ñu ngi leen di nuyu di tamit. waa Jokk ak waa Jokk ak Jaxaaw ñu ñëw ci yenn kaay yi ànd ak ñu ci doon àndal muy MSD Prestige MSD Impact di jaay oto di loo eh, oto xam ngeen leen oto bu fi baax ñoom ñoo koy jaay pièces détachées boo xamante ni jafe na fi tëna fi rek ñoom ñoo koy jaay ñoom ñu ànd ñun ci revue de presse. MSD Prestige Lamine MSD jaay oto di loo oto ni ñu ko waxee waaye tamit di jaay li nga xamante ne nii Lamine moo di pièces détachées Mhm. ñi fi nekkoon di ay sama pièce wala sama oto bi yàgg na garage ak loolu yëpp amatul ay nappaate la demal MSD précise wala MSD impact ñu jaay la bi. Mhm. buñ ko amul defal la commande bi maximum 15 jours ñu livrer la ko waa loolu neexul. waaw loolu neex na yéen ñu soxla numéro am yéen ñu nekk Brésil comme ni ma ko waxee ak li wër mën ngeen a jël numéro bi ndax jëlee Brésil oto indi ko Sénégal yombul da ngeen def plus plus numéro bi yéen ñi nekk Sénégal ak li ko wër mën ngeen a jël bii 33 835 72 83 ñu ñëw ci journal sunu làmb journal sunu làmb nag Bocar tey le roi des arènes moom la xëy fësal sëtu Samba Xoyaan bi muy Eumeu Sène doomu Pikine doomu bi ginnaaw raay doomu bokk jëf bu ma nee bokk jëf nag ku ma ku xam Pikine rek bu ma nee bokku jëf na nga ne kii xam na Pikine bokk jëf ab équipe la bu nekk wetu buntu Pikine ab équipe bu nekk buntu Pikine mooy bokk jëf Lamine Eumeu Sène la journal bi xëy woone Lamine fi mu toll nii nag gis na ko mu nga sol yérem blouson Lamine weekoo sër lii nag sëru sëru cosaan la sëru joolaa la Lamine waaye nag takk bay ni Senghor gis ko Lamine muy njóog ni yore béjjënam jàkkaarloog tëggkat bi Lamine jàkkaarloog bi li combat am ak Bombardier la boobu la wàcce woon ba ci suuf comme ni ko Garga Mbossé def woon keroog rek waaye nag journal bi dafa xëy def benn jàngat di wax ne en tant que roi des arènes Eumeu Sène mu nekk roi de arènes war a bëre premier combat am combat boobu noonu bu ko ñàkkee lan la koy def. bu ko ñàkkee lan la ko def Lamine la psychose d'une défaite loolu la journal bi xëy bind Lamine mu nekk la nga xamante ni mbiru xel la mbiru maan la waaye défaite lan la ko war a mun a def si en tant que tey mu yore roi bi tey loolu Lamine jàngat la bu am solo Lamine. Mm-hmm. parce que yore roi Lamine deful ak yow at sax nga ñàkk ko Lamine loolu beneen affaire la. Mm-hmm. loolu moom c'est impassable moo tax fi mu nii journal bi di laaj. njàngat wala di samp laaj rek si loolu noonu Lamine ni ko Eumeu Sène war a mën a dundee fi mu toll nii Lamine. loolu moom yaakaar naa ni le 28 av leer a leer ndeysaan combat le 28 avril bi dafa taxoon sama lami ba ma a wax le 28 avril waaye le 28 avril jeex na ñu ngi dëgmal nag le 28 juillet waaye lu ko jiitu le 16 juin Gris 2 Reug Reug bu leen ko fàtte combat baa ngi noonu sama combat ngi noonu ndax combat yi beneen am na ca caat ak armée ñoo ñoom ñaar tamit neexoo. combat yi li ni ko laa tëgg saison yi bala ma del si suñu lamb bi combat yi mu tëgg ku ci nekk combat ba rek da nga naan mun a wax kii mooy daan Gris de Reug Reug mhm. ku la wax kii mooy daan da nga lu la neex caat mhm. armée ku wax kii muy daan da ngaa wax lu la neex. Quench Diène Kaïré. nag kazaalika na ko noonu. kazaalika Lamine borom baatin yi de xëy na Lamine ngi leen di déglu wala xëy na daal mën nañ si wax lu leer waaye amateurs yi Lamine journalistes yi ahlu làmb ba si entraîneurs yi sax ku si yëpp sa mbër sax Lamine mun na ne tey sama mbëree daan par la force parce que mu nekk adversaire yi nga xamante ni ku si nekk Lamine sa morom dafa nekk sa adversaire de taille tellement que euh, euh, tey boo nee sondage wala tey favori sax Lamine mënu si bu si amee tamit légèrement lay nekk Lamine. légèrement lay nekk noonu waaye Garga Mbossé wala boog journal bi sax ba léegi ñëw na sax ndeysaan ci journal ci ci ci ci Garga ci rëg-rëg rëg-rëg ak gride 2 ndeysaan dañoo juum ba tur rëg-rëg bi ñu def fa Garga Mbossé waaye rëg-rëg la ak Gris 2 ñoom ñu war a bëri la saison yi li nga ni ko laay war ko yóbbu nag fële ci arène nationale ba mu mel test la pour

moom mooy abrité li nga xamante ne moo nekk mooy combat bi war a dox si diggante Gris 2 ak Reug Reug la. xam nga léegi ni ko laajee tey jii bu woon kenn dafa dem sax ñeme na dem bu ñu woon bu ñu ko tëgg Iba Mar Diop ñëpp fële la ñuy dem bu ñu combat bi xajul Iba Mar ko yóbbu Iba Mar Diop. ñeme na ko yóbbu que moom nitu défi naa ne man ak bu ñu boole woon day nekk événement. wala Lamine loolu Lamine nekk na la nga xamante nii rek du yow kese waaye Sénégal yëpp a teg seen bët parce que li mu fi tëgg ay journée ay journée am di doon événement Lamine kenn waxatu ko li ma la wax sànq rek ñaar fukki at la def si làmb Lamine su fekkoon nag daf si dox daf si nekk am ni muy doxee wala am ni muy doxalee Lamine du yegg si fii waaye nag daana teg si yoon daana riche si culture daana riche si ambiance moo tax daal le 16 bi Lamine incha allah non nationale am na problème arène nationale bi kon dina neex dina yëngu le 16 juin yëngal na Iba guy gi daan Zoss donte Zoss daanoon na ko Tabatine daan Zoss gay rakk ja nag di Garga Mbossé ginnaaw bu mu daanee Moussa Ndoye dafa bëgg fayul mag ja. bëgg fayul mag ja Lamine bu ndeysaan ni ñu ko a waxee rek Garga Mbossé tey euh, yat ne Lamine moom lañ dóoroon magam di Zoss tey yat boobu la bëgg a nangu. bëgg ko bàcc nag ñi nga xamante ne Lamine a def si lamb waaye nag mhm. ñett ñoo xamante ne daal ñoo ko daanoon ñoom la Garga Mbossé ciblé fi mu toll nii daal Lamine fas yéene jaamaarloo moom daal kenn ka comme ci tudd muy Ama Baldé moom keroog sax laaj naa ko mu ne Ama Baldé xamul fu muy taxaw bu ba nar a bëri ko fi mooy waral ne xamul fu muy taxaw bu paree pour bëri ak moom rek pare na pour bëri ak moom bu paree te bëri moom pare na pour bëri ak moom Lamine loolu waxi Garga Mbossé la li muy xam ne daal mooy ko ne daal Ama Baldé war ko fay bàyyi di jël Siteu fi mu toll nii nag lim li ni nga ko waxee la rek jet bi daal foog naa ne la fas yéene nangu rek fas yéene ko dóor ki nga xamante ne moo di Ama Baldé wala guy gi wala tafaatin nii ne daal daa war a bëre rek moom a ñàkk leneen ne wax na ko digganteem ak Malick Niang diggante nag waaye nag bañ ko laajee digganteem ak Sa Thiès moom bëggul combat boobu nee na bëggul combat ak daal Lamine fi toll nii daal wax na ñim ciblé na ñi nga xamante ne ñoom la fas yéene rek ñoom ginnaaw sax foog naa ne ñeenti promoteur wala dox nañ daal combat ak Sa Thiès ñeenti yoon te sottewul fi mu daal daa mel daal li ñu naan ne meddum meddum medd euh, bëtu tan jéggi na jéggi melentaan daa mel ni looloo ko daal fi mu toll mënta jéggi meddu melentaan ndax yaakaar naa ne mënta raw ki nga xamante ne wala boog rawagul ki nga xamante ne mooy Sa Thiès Garga Mbossé instant bi munul bañ Sa Thiès Sa Thiès tamit munul bañ Garga Mbossé ñoom ñaar li leen boole boo ko dafa bari mhm. xam nga laa leen leen boole mhm. Lac Rose boole na leen ñoom ñaar ñëpp daan nañ ko boo ñaar boole na leen. ñoom ñaar ñëpp daan na leen. tonnerre boole na leen. ñoom ñaar ñëpp daan nañ ko. nañu bëre combat bi dafa ñor. combat bi Lamine dafa ñor dem rek def nañ si micro reportage wala micro trottoir Lamine nit ñi war si waxtaan wax jox seen xalaat fi mu toll nii daal Lamine Garga Mbossé ak ki nga xamante nii moo di Sa Thiès ñor naam ñorul amateurs yi la ñuy déglu wax nañ si seen xalaat promoteurs yi nag nañ dem seeti ñaari mbër yi fay leen kese ñu bëri Lamine. wax ci sa xalaat yow. ñoom ñaar ñor na ni ñu ko waxee rek ñetti mbër dañ leen boole yoo xamante ni Lamine ku si nekk laala nga ak ñoom mu nekk seen dénominateur commun loolu nag xam naa ne. xamoo ko xamoo ko waaye daal. mbër ñetti mbër yooyu naan daal waaye wax ma ko ci wala. mooy luñ bokk rek mooy luñ bokk mooy dénominateur commun mooy ñoom ñeent. léegi doom wax. Euh, trois adversaires en commun. trois adversaires en commun loolu troisième lañ koy jàngale. doomu mathématique mathématique troisième troisième lañ koy ah, jàng. man eggaguma fi mu toll nii nag Lamine. Ah. combat dafa ñor. Mhm. dafa ñor te dafa jaaru parce que euh, Sa Thiès gis nga ko bëreegul. Mhm. ni muy xaar nag na jël avance Garga Mbossé Garga Mbossé tam rawul Sa Thiès na ko jël bëreeg moom loolu sax confirmation lay doon rek ngir wane ne Garga ñëwaat na si làmb ji. Garga Mbossé tamit lam jàpp mooy ña joxoon Moussa Ndoye favori yëpp dañ ko xamul. nan lañ joxoon Moussa Ndoye favori dañ ko xamul waaye xëy na tamit ñi joxoon Moussa Ndoye favori daa am fu ñu ko tegoon rek du bañ xam xëy moom li mu jóge si défaite nekkoon année balance bañ compétir gaa sax moo ngi doon contact parce que xam nga ne kuy contact ak ku ni koy bëre di teg la ay loolu taxoon ñi jëloon favori bi jox ko jox ko Moussa Ndoye foofu lañ woon xëy ndax géej géew gi boobu nga wax ne mën na laa perteloo say repère Moussa Ndoye moom ko seqaloon nag moom nag dafa xëy instant bi kenn gisu ko kenn gisul Moussa Ndoye nekkul këram lu ko waral Moussa Ndoye lii làmb la woon daan nga fi Lac yàggul daan nga fi toneer yàggul daan nga fi Alioune Seye yàggul daan nga fi Bébé saalum daan nga fi Modou Anta te ba nga leen daanee ba nga xëyee journaliste ba ñëwee dañ laa fekk sa kër comme daan nañ la xamal ni làmb nii la beneen yoon soo bëree dangay daan kon toogal waxtaan ak say mbokk man man bu làmb ci jeexee dem naa kër Garga Mbossé bi ma xëyee woo naa ko dama ko woo téléphone am sonné rek mu ma ne wax dëgg lii soxla sax ci mbër mbër buñ la daanee taalal sa téléphone nit ñi di la woo di wax ak yow ndax boobu bëggoon naa def ak moom interview waaye nag kilifaam daf fay nekkagul moo tax boobu ba léegi mënuñoo am interview. boobu ba léegi Lamine mënuñoo am interview waaye daal li li leer ba leer daal mooy que ne yàlla mi doon may ndam moom may Garga moo si ndam Lamine

boppam bu baax ci open presse bi ndax xale bu doy ni moom boo am lu toll ci ay vingt deux ans vingt trois ans di war a mën a boole dajale mbooloo mu bari boobu noonu yaa teewoon Ada mu mel ni assuré na wala boog rassuré na leneen nga xamante ne mooy mobilisation bi. na mobilisation ba Lamine mobilisation ba démb Lamine yi def nañ ko open presse bu jaar yoon sax vraiment. amul perturbation da nga naan monsieur Open Presse Lamine pour wax ak mbër bi sax di doon problème mais démb vraiment am na organisation ay mbokkam wër nañ ko mu ñëw feccu tuus def cosaanam sato def box leneen ak leneen ak leneen wax ak journaliste yi nag fi mu toll nag moo ko Ondé Lofou ñoo war a bëri Ondé Lofou nag magum bëri la parce que moo ko jiitu si làmb nekkoon na fi tëdd fi la xam sa cosaan mais xëy na làmb tër Fass nag li xam la Lac war a dajee mu war nekk foog naa ñetteelu yoon bi ñu war a daje Lamine mhm. jaakaarloo ku nekk am lu wax sa morom am ay kàddu yoo war a jël jëmale ko sa morom ñaari ndaanaan la ñaari bodukat la kii dafa am lu def si làmb kii tamit am lu mu jot a def si làmb di prouvé ba yegg si moom la ñu war a bëri Lamine kon waaw amateur nañ nañ yónni nañ yàgg la yàgg bawul dara nañ ko yónni booy ñaa tamit ñibbi si ba Modou Lo retourné na fële ci États-Unis pour yokk cere dolli ñeex ndax tamit ci combat jëm ndax dafa jóge ci defet yokku cere dolli ñeex si combat jëm jóge ci defet Lamine Balla Gaye daan ko daanaat ko Lamine muy Eumeu Sène Lamine Modou Lo daanoon ko est dina ko daanaat Lamine loolooy problème bi fi toll nii Modou Lo daal demaat États-Unis le pays de l'oncle Sam dem bu waajali rek parce que unis moom foog naa ne waaw foofu moom high level la waaye suba lay am ca arène nationale ba kii di sëñ Modou suñu père moo ko tëgg. waaw sëñ Modou Niang li ma ko waxee rek lamin kooku dafa am lu mu def si làmb mooy génnee mooy révélé mooy mooy mooy mooy wone li nëbbu woon xarañteeg wala mbër njàmbaar gi ne si mbër yu ndaw yi Lamine tout le temps da gis moom ay combat ndaw lay tëgg waaye ay combat spécial yu neex moo war a dem nag. tëgg ki nga xamante ne mooy combat bi war a dox si Félix Sembène Ndiago bi ak Pape Bou Xees du mën a ñàkk ñuy nuyu gars yi suivre le rek di nuyu ki nga xamante mooy Boubacar Silam moom tamit dafa mel ni deful commentaire waaye wala boog def na commentaire waaye bindul dara dooleem lay wane Seydou Traoré ñu ngi koy nuyu Saliou Guèye ki nga xamante ne mooy Matar Kanté Cheikh Bass borom Kër Massar ñu ngi koy nuyu Bokar def United Lamine def United Lamine ñoo ngi koy nuyu Matar Kanté Bilbao la ne ñoo ngi koy nuyu di ko ziar Cheikh Bas sama doom day ñoo ngi koy ziar Lamine Afe Gueye nañ la Demba Pam nuyu nañ la Mohamed Ndiaye Yoff ñoo koy nuyu Lamine di ko ziar Maam Jaxumpa ñoo ngi lay nuyu Seydina alin borom jaasi yi ñoo ngi lay jaajëfal Benzema dem Brésil jaajëfal nañ la Lamine ak Daaw Dongom ak Alioune Sarr ñooñu Alioune Sarr koy nuyu di nuyu ki nga xamante ne mooy Baara borom Brésil du ma fàtte tamit Serigne Ndiour ki nga xamante ne mooy euh, suñu suñu grand frère. Mhm. ku si jaboo ñu ngi koy nuyu jamekee bu fi nekkoon nag ni suñu papa. waaw suñu papa lamin Jabong ñoo ngi koy nuyu Lamine ak père Xavier. yow yow Jabong maguloo sax ba nga naan suñu papa. Jabong moom ma mag Lamine xanaa taay bi la nii rek mais man xale laa de. Mm. xale bu ndaw. Modou Diop ñu ngi lay nuyu Lamine Touré di ñu ngi lay nuyu Mbacke Diagne Touba Mor Jaxate Brésil ñu ngi koy nuyu di nuyu tamit Momo Talla Ndaw ki nga xamante ne mooy papa Thierno ñu ngi koy nuyu seen bari du ma fàtte tamit ki nga xamante ne mooy Galas Cissé général Diop Kocc Barma ñu ngi koy nuyu Mamor Fall Babacar Faye Medoune Talibe Bamba ñu ngi lay nuyu Mamadou Gueye Talibe Serigne Mbaye Sy Abdou ñu ngi koy nuyu. Cissé bu Séné bu Serigne Saliou ñu ngi lay nuyu lu bëree bëri Xarim Fall Touba bi ñu fàtte tamit ki nga xamante ne mooy Lo Sianto. loo Sianto Lo Sianto waaw Moustapha Diallo nuyu nañ la Lamine Maodo Malick Thiaw ñoo ngi koy nuyu Lamine ñooñu ñoom dañ commentaire di Bégali TV Ahmadou Bamba. ñoo ngi lay ziar sang bi ku tedd ki jaajëf Amadou Bamba nee na Bokar Babacar sonal na la Bokar bu sonalee benn la Bokar Babacar sama grand la sama grand la mais sama mbokk séeréer bu gàlle la loolu laa koy tooñee tout le temps mu may tooñ waaw bëggee rek waaw jaajëf tey ñu koy nuyu Sey ñoo ngi koy nuyu Sanoxo la Pikine waaw mon ami de valeur maa ngi lay nuyu di nuyu tamit ki nga xamante ni mooy Laye Diop di ñu nuyu di nuyu tamit Modou Sall Abdoulakhar Kare Maman Ndiaye ñu ngi nuyu ñëpp daal tuuti yaay Sarr duñu la fàtte ak ki nga xamante ne mooy Sidi Diop Omzo bu a Fallou Ndiaye Guèye Teranga Guèye moom mun a Guèye Teranga mënut nekk Seck Teranga boo naan boo santoon Seck sax waaw ñu mën koo négocier mais Seck Teranga Abdou Diakhaté ñu ngi koy nuyu Seck Ndaanaan xam nga ni Seck Ndaanaan rek ay njëkk a commentaire nag ci àdduna. Seck Ndaanaan ñoo ngi koy nuyu di ko ziar Lamine du nuyu nag suñu grand yi ñi ñuy bëggee. ñoom laay bu deef borom Sandaga layti seeno mbélo ngij maam Waly Seen nuyu naa ko sama jigéen faagay sama frère layti seen xam nga ne ban heure la ma envoyé vocal boobu nelaw naa moom na xam nga li ñuy naan fêtard noctambule moo ñu dul nelaw guddi moom du nelaw quatre heures du matin la ma envoyé vocal boo ko nee kar kay jot ko téléphone kay ah. heure waaw boo ko nee kar ko jëli fasan ñu ngi koy nuyu borom Sika Plateau Sika Plateau ko fa nekk yaa ko man di nuyu nag sama xarit Abdou bu xarañ loo Mame Balla laay bu def comme ni nga ko waxee petit deux jours après euh, tabaski korité maa ngi yokk sax dat ba drapeau Serigne Saliou Mbaye borom jinne waaye nag dimanche mhm. Assane Ndiaye moo woote Iba Mar Diop mhm. tonnerre de ak Guine bu Yoff mhm. Assane Ndiaye borom Bawol production taalibe Bamba bi Lamine moo jaar foofu noonu dimanche na ñëpp waajal dem seetaani lamb jooju Lamine sama frère sama doom yaay Yacine Sarr fils de Amoura Sarr entraîneur équipe nationale maa ngi koy nuyu di ko ziar doom ndeyam café di nuyu Sadio Mané ak Henri Camara Sadio Mané Henri Camara Lamine Youssou Ndoye ñu ngi na vidéo bu mu def si Sadio Mané pour sénégalais a fier si Sadio Mané Lamine ne ko ñëpp ñaanal jàppale ko neen ñëpp war a ci moom waaw ñëpp a la yaakaar naa Barça fa la Barça fa la Messi ne la mel. xam nga man football bi moom yow xam nga ni xaw ma ci dara. waaw Barça Messi Messi laa fa xam. Mm-hmm. Suarez. Mm-hmm. Neymar jóge na fa. Neymar jóge na fa. non ah. Barça sax équipe bu mag la mais euh, Sadio Mané amul complexité boobu moom moom xam naa ne bu dajee ak Messi moom ni mu defaloon ne ni mu defoon Neymar rek waaw rak cak waaw en tout cas daal ñoo ngi koy. ñaanal daal ñoo ngi koy ñaanal daal Lamine. daa nga séeréer séeréer xaalis. fi mu waaw gauche droite talonné loolu oh. yaa ngi fàttaliku lu yàgg Lamine yaa sent Sarr. kii kii ñoo ngi koy nuyu. balaa ngaa nuyoo Miltus da nga doon ko def Miltus. ak Balotelli. Miltus kay du taamuñu ci Balotelli rek. moo ëpp lu ko daan defee Lamine. Ah, ñaari briques ngay samp nii rek. kocc xam nga ko kocc. kocc ak égaat bul pa lépp lu xale di fooy daal Lamine. teg pa xam-xamoo li ñu naan teg pa. pa taalibe. waaw teg teg def def triangle nii teg buli si biir. <laughs> ataale ah, bi ah, yow Lamine ñëw yaa wóor boo kër kon yow rampe nga. rampe nañ de doo français naa be. non ñu français duñu ñu di jox ñëpp rendez vous jeudi incha allah.